ni mu yaaye ku gorul yettul ñu xëy na duggal fu la neex lekkal fu la neex fanaanal fu la neex waaye bàyyi fi genn garab gii ndakaaru ku ñu xëyoon jox ko joxoñ la mel nam taax ne bu ko laal waalaay nga mën ko wul on nga war ko faa mën a bàyyi xana xana ndakaaru gépp ngoog jëlal waaye nag taax mii rikk waaye bu ci wéeru bu fi toog ah nga war ko faa bàyyi waaye xër tax na mu jéem ko ramassé waale moo ko yóbbee nag lii iblis ree ko yóbbee li ko dal wa is qaala mal wa is qaala rabbuka lil malaika inni xalaqtu basaran min tiin fa isa suwaytuhu wa nafaxtu fii min ruuhi fa qaa'u lahu saajidiin mu def ko mu pare mu santaane fa sajada al malaika kulluhum ajma'iin ila iblisa ababa stakbara wa kaana min al kaafiriin maa manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadii astakbarta am kunta min al aaliin qaala ana xayrun minhu xalaqtanii min niir wa xalaqtahu min tiin qaala faxruj minhaa fa innaka rajiim wa inna alayka laanati ila yawmi ddin qaala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athuun qaala fa innaka mina al-munzarina ila yawmi waqtil ma'luum qaala fa bi'izatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasina qaala fal haqqa wal haqqu aqul la amla'anna jahannama minkum min tabaka min ajma'in min ajrin wa ma ana mina al-mutakaffileena in huwa illa dhikrun lil 'aalamiin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da yawmin Xaabil moo rey aabil kañaan a tax ñett yooyu lañ njëkk a tooñu yàlla kañaan ca doomu aadama ja ak doomu baayam rëy ca iblis ak boromam ak Moustapha xër ca aadama ak àjjana mu jaaw lool yàlla nag am na habitude dofilin gune du ko tax a jóg ñaare ak surga borom kër lay déglu ba iblis ne yàlla comme Adama tax nga génne ma te man xam naa fi ma jaar ak yow Adama jaaru fa daan naa ko joxe dar bu masal du ma tàyyi sax dellu ci benn emploi la bu nekk ci boîte liggéey fa cinquante ans di ouvrier daar man menuisier man maçon man forceron man a conduire man comptabilité man itam sax toujours yi di toog yëpp moo ko daje di ko liggéey amul nag indemnité amul heure supplémentaire amul voiture bu koy jëli amul chauffeur amul essence ñu di ko fay deux cent francs par mois waa jooju la boîte bi xëy na embauché benn waay bu mokkalul maçon mokkalul menuisier mënul ci comptabilité dara chauffeur xamu ko mënul togg te it bi dentikat la bu liggéeyee ñaari fan toog juróomi fan te it bu xëyee balaa dem foog mu yàq lankër toj aset damm pilim waa jooju nag la gars yi ne ki fi yàggoon te ouvrier daal kay sa seet daal di ko defal deux cent mille ak oto ak heure supplémentaire ak chauffeur bu koy jël si noonu la Adama demee ak Iblis ah mu ne ah waa ji ne ah non duma man loolu ah kii ñëw fi démb nekk sama seet ak man li ma liggéey ak li ma pour nekk li ngeen may jox ñu ne ko looloo am bu la neexee loolooy am bu la neexul noo xam def mu ne fay leen ma ma dem ñu fay ko jox ko indemnité mu ne ko nag mu daal di ne nag yàlla dama ne bu fekkoon yàlla mën naa jox kenn ginnaaw dafa daal di wax yàlla ne ko la uxwiyannahum ajma'iin kee tax nga def ma lii du ma ko bàyyi moo ku mu jur ak ku ku jur ku mu soto ku mu soto ba ilaa yawmal qiyaam ba dinaa leen torompe ba ñu def la lu la naqare yàlla ne ko baax na bu boobaa ñu xam ne maa am teraanga waaye maa amit duma it man itam la am naa la jaanuma min ko min tabi Iblis a ko ne la uxwiyannahum ajma'iin mu ne ko demal man it la am laa am na jaanuma min ko man ne ñaari laam yooyu ñu gongee ko ku ne dem ak sa laam billahi dinaa leen torompe ñoom ñëpp ñu ànd ak man loo leen joxoon pour njariñ ñu soppi ko arma xeex ak xeexal yàlla na ko maa ngi xaar loola bu boobaa yaa koo ko defal dinaa leen feesal jaanama ba ngeen fees jël ah gars yi waa jooju ma ne ku mu bëmax montagne boobu ñuy wax àddina ku ci taxaw dàll yooyu ñuy wax bakken ak bànneex ku ko sol bu la yàlla dimbalewul nga laal suuf te kat dafa giñ daf ne balaa maa bàyyi gaa yi ñu xam moo tax yàlla yedd nañ doomu aadama ne yedd yu rëy bés pénc bi ñu taxawee iblis na sëmm sëmmaaral ñi nga xam ne dogalul ci ñoom ak pexeyaa ji ñépp taxaw yàlla ne yaa bani aadam doomu aadama seen baay bu tedd bi ma teraloo ngir réew leeru rasulillahi waxuma leen woon ne an laa taabudu seytaana waxuma leen ba tàyyi ci yenn yonente yi ci téere yi ne bu leen dégg ndigali seytaan innahu aduwul lakum mubin waxuma leen woon loolu ñu ne sànq mu ne waxuma woon loolu yow ma ca woon waa nax bu dooni it noonu naa na ngeen ma déggal hasa siraatul mustaqim ngeen dëgër bopp di ñàkk fayda ba mu dugal leen ci lii musiba am na ndax wala xadala la minkum jabilan kasira sànq na ñu bëree bëri ca maam ya ak maamaat ya waroon na leen a jox exemple afalam takunu taaqiloon taxawaay amul xaasi jaanam amul taxawaay aslowa entrée ah gaa yi boobu bés doy na waar danaa daje ñaar ñi ku ko fekki bu ci yéen mën a duggul musibaam ku néew doole lool te dëgër bopp ak ku bari doole day tey sàmmi waxam doomu aadama yi néew nañu doole torop te dëgër bopp yàlla bari doole lool tey sàmmi waxam seen daje bu ci yërmandi duggul dara du ko jar nanuy sërqal léeg-léeg bés yu mel nii toogaay yu mel nii am na lu bari lu muy jàng nabi ne na benn toogaay bu mel nii benn dina kaafara fukki junnay toogaay yu safaanoog moom kon dëkk bi ñu ngi leen di sant xale yi ñu ngi leen di sant boob sant
nekkul moom moo tax ñu ñu ñu
loolu loolu loolu Abdourahman Ahmad Ahmadou Lamine wax ne ci kaw asamaan ku mel ni moom newu ci ci suuf ku mel ni moom newu ci ñiy dund ku mel ni moom ñëw ci ñi ci bar saqa kenn melu ci ni ñoom ñi nar a ñëwit ñëwaguñu kenn du ci mel ni moom may ma tuuti may may leen ma tuuti may leen ma tuuti dama toll ci point ma te dama ko bëgg a teeral rek ngeen way loolu li jur yëkkati way mooy tontunte ak yàlla ah paate wayu si daj ma dog bi paate yëkkati ak sëñ bu baax bi ma teeral ci mu jéem a dugg ci film bi ndax ak teel si baa ngi gudd te film bi am na solo te incha allah yonente bi day dund ferankallaa yi ci kaw lali jabaram saaba yi wër ko bu jékki-jékki wax benn baat ne badal islaamu xariba wa sa yaudu xariba fa tuubee li man ayaha fi zalika sama l'islam ci tumuranke la feeñ lu ne laa daj am na jamono li àddina yaay yëpp benn jéey laal suuf benn muy bosam ba bu tedd ba tumuranke gii mu commencé nag balaa àddinay tukki dina ca delluwaat lu ma fi fekk nag waaye maa ngay ñaan teg fi ña koy défendre booba jamono yàlla yoonu yàlla may ajjam mu wax wax bi bàyyi ko fi dem jamono yëpp ñëw di passé di ñëw di passé ba Sidi Hadji Malick ñëw ci xarnu bii nga xam ne Masasine ci la gane ci la génn àddina Masasine ci la Sidi Hadji Malick faatu muy mille trois cent quarante bi ko nabi amee ci suuf la Sidi Hadji Malick dem Sidi Hadji Malick yër téere yi gis wax ba mu way nag way wii wayu mu xaaj ko ñetti pàcc bii mu wax kook nabi bii mu wax kook yàlla bii mu wax kook taalibe yi boo dem yonent yi seen ruuxu yëpp ci benn saal la ñu nekk laxtaat yi noonu lawliyaay yi noonu bépp wali yu bu taalibeem tollu diggante yuuxu wala mun a yoxat wala ji ko dellu si waat toogaat ci la ñuy wax ne rafaa yi kenn du moom moom la ñuy wax ne moom rek badi wi moom rek mës a dem ci jën wi nga xam ne mooy yenn suuf yi juróom-ñaar te benn taalibe may bëgg a gaañu rek mu ne fër ba ci asamaan gisu ko mu ne dóot ba ci suuf juróom-ñaar jën bi ne ko kan la mu ne ko man la sama taalibe ma woo te xam nga fu mu ne mu ne ko jéggi nga too fi mu def mosu feeñu si laaj ma di jékki-jékki rek daal di def appel ne allah ya rasulallahi trois cent treize yëpp na ñokket taxaw fan la fan la kan la mu ne hey yaa afdalal wara yow laa wax ñépp a toog na bi taxaw ala ya rasulallahi hey hey ndawal yàlla li trois cent treize yëpp ku ne jóg ne man la mu ne déedéet afdalal wara laa wax deux cent onze yëpp toog duu si Moustapha taxaw ne loolu mën a mu ne ko fa haa yëgal ni neex nu nun waa jamono fi diixin ci ci sa diidi taraakum way wa daanu mu yëkkati weneen ne ko naxnu fi diqin wala narju farija si wallahi wal huudi li subbalil makarimi yëgal na ñu ngi ci tiisan yow mi ci Madinatu Munawwara man mi ne Sénégal maa ngi laa yëgal na ñu ngi ci tiis tiis woo xam ne yaakaaruñu ku nu gindi ku dul yàlla ak yow teg nu ci yoonu njub daal di kene nag la nga waxoon ba ngay dund maa ko fekke sa daxta ala maa qulta sa daxta wax nga dëgg bilay wax nga dëgg ala maa qulta ca la nga waxoon la nga waxoon ba ngay dund loolaay lan mooy fi xaw di diine naa retourné diine ji xariban ci tumuranke kama fil bada yaa noon bada l'islam xariba wa sa yahudu xariba maa fekk loolu sadaqta ala ma xulta fi aw di diina na yalax na bi nag na ges yàlla ne ilahi fajal ahlana ahla qurba wa ahla tibai sunnatin fi taraumi yàlla maa ngi laa ñaan ci ormay Moustapha ñaan nga ñu déposé woon ne ku dimbale l'islam bu tumurankee dina ko am yàlla nu ca boole yàlla nu ca boole yow yàlla na yàllax yàlla na yàllax Moustapha na gees taalibe yi na yéen na yéen a ci des nag naudu aliya bi nawajis rikk gaa yi gore leen te ñu matt l'islam ak dégéj arab bu lay dénk lu mu bëggul nga bàyyi ka danaan la matt koog sa dégéj mooy bu ko bàyyi alaaji Malik ne naudu aliya bi nawajis rikk waay na ngeen ko matt ak dégéej matt ba demee naka kama xaala ni ka ko waxe woon ci fan fil isaa yi ci dénkaane ba mu doon dénkaane kan la woon nadaratu xazmi yi flooru gir bani asim gir bani asim li ñuy baax baax na bee seen floor kaana xuraysun baydatan fa tafaddaqat fa muqa xaalisuhu li abdu manafi nee na xuraysi li ñuy sell sell ba niru nen dëgg la sell nañu ba mel ni nen waaye nen kat boo ko tojee la xonq la ci biir a gën a sell kon bu xurey sin dee nen ci biir ni nit na béy pëdd ba ci biir xonq coy xam nga xurey sin bay datal fatafadaqat waaw kañ ma àggale nag sama kees bi moo aadama foo xamee waa jooju ba tudd ma ko mu ne ko fu ma dem ñu bind fa dara ci àjjana sa wasak wasam laa fa fekk mu ne ko kon baal naa la baal naa la bàkkaar bi waaye du ma la delloo tey àjjana tey tey du mën a nekk su ma la delloo tey àjjana baal gi du landi da nga ma tooñoon ci biir àjjana ma génnee la mu ne waaw mu ne ko da nga may tooñ nag ci bitib àjjana yaag sa doom ak say sit ak seen sitaat ba tooñ yi bari ma boo leen dugalaat ci biir àjjana nga xam ne baal naa gaa yi loolu rek nu fi tax a toog loolu rek nu fi tax tooñ koo tooñ ba mu bari mu fa war nu dugal ci biir ba nu xam ne baal nañu waaw ma ne koo tooñe woon ci koo tooñoon ci biti koo tooñoon ci biir këram ci biir këram mu génnee la nga tooñe ko ci biti mu dugal la ci biir am nag safaan maam aadama li tax keroog keroog delluwu ñu àjjana te baal gi dëggu mooy yàlla daf ko ne boo dellu see tey baal gi du landi balaa landi nag nga jur mu tooñ ma kooko jur mu tooñ ma kooko jur mu tooñ ma ngeen jurante tooña ndooma ba mu bari ma boole leen tooñ yépp a delluwaat leen àjjana nga xam ne Moustapha lu way ut ci man jaar ci moom dina am loola
بجاه محمد لا بجاه محمد من المولى بجاه محمد وادلوا بجاه محمد
woykat bi daal sabaay yi rek la indi mooy témoignage saw waaw kay moo di looy sàkku ci yàlla sàkk ko ci Muhammad loo ci sàkku rek jot ko kon nu ngay commencé jàng yi nag ku ne def fatiha ak benn saat fatiha ñu jot di dem ak ñu fi toog yàlla defal leen li ñu bëgg musal leen ci nit ñi ragal ñu tàbbi ci liggéey bi عدا أبو بكر عاد أبو بكر رائلتين عاد أبو بكر لإجرته رائلتين عاد أبو بكر لإجرته رائلتين كن جزاه الله صنعا lépp googu ci kanam ay ndemante léegi lépp lay dox ci arab fiil daf di daf ci am bu ñuy wax laasim ak mutahaddi fiili laasim mooy fiil ji génnul ci jëf al mutahaddi mooy ki ko romb uti mafoon daa ko dégg léegi ne alaaji ma làkke ci grammaire daa dégg léegi waxin wi anniversaire bu nekk dañ cay fàttali jëloore jàmbaar ju demoon ñu fàttali ko ñi teew te demaguñu pour ñu jéem a profité balaa ñoo dem def defini kooka fi na départ tey ci loolu góor gu baax a baax meloon ni góor gii ma doon nettali sànq ci diine ñu di wax Abubakar Siddiq kenn du moom kenn du Ababakar boo yëree téere yi rek xam na li nebi noonu wax bu foor la Moustapha Moussa wax ñëpp ak ko toogit nëbbu ko ca kaw la ko wax dana maali ahadin an wa mayyaa bilaay laqad atat saa'imooni shay'an fariya maa li indin wala li may ya naddi su fuwa dimri'in aaba nabi wax ko ma dégg ñaari maa li indin wala li may ya nasibo maa li indin wala li may ya nasibo fi fuad imri'in aaba nabiya aywa مصطفى من جميع البرايا مصطفى من برايا مصطفى حبيب قريش سيد نظامني أحب عند وميا زامني أحب عند وميا قد أدر زاهبون زي البرية مصطفى من جميل البرايا مصطفى لا من جميل البرايا مصطفى حبيب قريش جيد نظاموني أحب عند وميا سهموني أحب عند وميا قد أتى دائمون زي البرية مصطفى لا من جميل البرايا مصطفى من جميع الحياة مصطفى حبيب billahi déglu leen woy woowu rek ni mu foore nga xam ne arab ñoo mën a wax dafa ne saay moo nii tuumaal nañ ma racine ay ndimenti la mimara ci arab day firi wax waaye da doon toujours wax bu dul dëgg la bari na ci alquran waaye foo fekk saama wax budul dëgg la déggu la yàlla ne saama lesina kafaru ne allan yabxasu xul bale dégguloo ne qul yaay wa lesina haadu in saamtumo annakum awliyaau lillahi min duni naasi dégguloo salhumo ayuhumo bisalika sain foo dégg saama moo xaawara ak xaala ñoo bokk prix wax lay foon mais kële boo jàngee bayaan di nga xam ne wax bu dul dëgg la ndax bu olof ne la waxal nañu ma mbaa mu ne tuumaal nañu ma di nga xam ne tuumaal nañu ma dafa làmbooy fen am déet arab bi nag ne tant yi ñuy tant mooy sol lu rafet di taxaw ci kanami nit ñi di wax affaire yi ne bi am na ñu ma tuumaal ne dafa am ndaw su ne ca làng ga ma nopp ko waaye waxuñu dëgg de du benn jànk mbaay luñ ma duural uxibu ibnda sopp ndaw suñuy wax inda wa mayya ku ñuy wax mayya bilaay laqad atat dikki na saa imoona way duural ñu say an fen fariyaan wu réy réy réy yegula ne maa li indi nasib wala li mayya nasib maa lahuma nasibi fi voie dimriin ahaba nabi jong ba tàyyi dem nga ko waxuñu dëgg xol bu fees dell ak soppa nabi inda amatul fu mu fa dugg maya amatul fu mu fa dugg boo yëree téere yi xam ne li nabi wax ci moom yeeyoo na ko yonent bi dafa toog bés ne ñëpp wër ko mu wax ca kaw it na bu ko kenn ne maa li ahadi lahu mansilatun fi qalbi ka abi bakri amul kenn kenn kenn koo xam ne am nga wàccuwaay ci sama xol bi bu day ni bi Ababacar am du kenn nag bu waay ma ne ma ne si dee bi Bakir boo xoolee loo naw na bi naw ko lu ko ëpp yëg nga ne nabi keroog bi muy génn màkk di dem Medina ma fàttali la ne keroog dem yomb na ko ndax li tax keroog dem yomb na ko booba bàyyam nekkul ci dëkk bii dund booba amul ci màkk baay buy dund booba ndeyam dundul booba doom ju góor ju mësoor amu ko booba jabar ju ne ci këram amu ko jabaram deena te kiñ ko may jotagu ci ndax ababara ko may doomam ginnaaw bi mag jabar ja dee te booba gos bi sept ans la ko am juróom-ñaari at ci la ñu may ay situ si di Moustapha dencal ko ko ñaari at muy juróom-ñeenti at ñu doon ko koo jébbal ma ne bi na bii génn màkk di toxu booba toxu yomb na ko ndax booba bàyyam newu fi ndeyam newu fi jabaram newu fi doom ju góor ju masoor ju koy wéttali newu fi amu fi génn giléem ma mu fi génn garab guy ñor amu fi benn sarde amul opération amul lu muy jaay loxoy neen la kooku génn yomb na ko ki ñépp naw mooy Ababacar bi muy dem booba bàyyi ma ngiy dund yaay ma ngiy dund jabaram ma ngiy dund ay taawam di dund koñ boo làqati ko am na fa opération àll boo dox am na fa tool giléem yoo dàppale ci ëpp moo ko moom mu ne Moustapha lu ma antanu dinaa ko fi bàyyi lu muy yees yees ku ma toppul fase naa la donte jabari biig la doom ji ma toppul fàtte naa la donte kuy bootu la tànk boo sulli ma suul ko jox gannaaw fa mu am xam fa mën fa dëgmal fu mu xamul am fa mënu fa te fasul yéen ñibbi si ba ilaa yomal xiyaam moo tax moo tax ñoom la yàlla jëkk joxar bi ni lil fuqara il muhajirina lasina xujoo min diyaarim wa amwaalin yabtaquuna fadala min allahi wa ridwana wa yansuuna allaha wa rasulahu ulaykum mustadi waaye bi yàlla noppee ci ñoom it dafa gestu lansaar lansaar it def nañu lëf gan gu ak si indiwaale surga ak giléem ak mbaam te xamula kañ lay ñibbi ah boo siisee mu xamal la dara waaye dañu yaatal dina yaatal kër yi ne ku am ñaari kër na joxe benn bi tey ku am ñaari mbubb na joxe benn bi tey ku am ñaari giléem joxel benn bi tey ku am ñaari tam joxel benn bi tey dem nañu ba àgg ci am ku am ñaari jabar na joxe benn bi na benn lislaam nanguwul loolu moo tax bi yàlla taggee ñi taxu ña leen dalal la ca teg na ne wëy waaye wëy waaye wëyit wala si na tëbboo daara wala imaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimmaa yu'tuuna wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa suu'a nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun ba yàlla taggee ña taxu tagg ña leen dalal yéen la ci teg naa nag wa ne nag ne wëy nag wala si na jaawu min ba'dihim يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا واغفرنا ربنا انك رؤوف رحيم ما نكو بوكول تي ني غداي بوكول تي ني دلال بوكول تي ني ني موجي واخ خاما تي بان كلان با بان بارتي با بن كوميتي nga bok xamako xamako madame bi xam nga boo gisee ñu ne xaqu diyaafa salaasa nabi ne na limiti nganale trois jours la soo amee gan teral ko bés bu njëkk ba tàggoowul nga des teral ko deuxième tàggoowul nga teral ko troisième tàggoowul bu yeboo quatrième ba mu añ si ci ndën li wàcce nga wàcce nga xëy na kër gee neex ci moom rek mu nar a toog loolu du dëgg nag ñëw ñu ne yàlla xaram tuwa biir nga añ ca reer ci ñu xëy na fat si kët bu rëy nga añ ca reer ci ca ngoon sa ñu reyal la ginaar guy guy guy guy guy nen nga añ ca reer ci boo boo ñibbiwul bu ginnaaw léegi géej ngay añaan parce que yow yow yow xawi su tëlas kër gi nga nar moo tax moo tax ñu ne xàqu diyaafa salaasa gisuloo gisuloo aale gay bu ñu dekkee ñun ñëpp ba war a dem àjjana avant ñu resondeur suñuy suñuy suñu ko suñu suñu suñu cité ku ne jël këram yàlla leenu garde ci benn salle bu adultu illa yi trois jours gën a leen bés bu njëkk ba bu ci ne nabi koy présider waaye dina invité ku ñuy wax daawuda daawuda ku neex baat la nabi daan na wax ne baatu daawuda piano la ci piano yi àjjana sawtu daawuda mismaaru min mazamiri janna sunu première invitation gi yàlla meew la nuy jëkk a jox buñ ko naanee mu indil nu resu jën wu ñu fir kase mooy res wi ñu jën wi ñuy wax noonu bi sa yàlla baat na nuuni nuun dina firi jën yàlla tudd na ko ko ci alquraan ne na ñu jën woowu moo yenu suuf yi juróom-ñaar nganda la resam la ñu yàlla jëkk fir kaseel jamono yoor yoor ñu lekk ko moo tax ñu bëgg bu tëbaskee balaa kenn naan lekk nga rey sa xar fir kase res wa ngir gàtt nga bokk ca res wa wa keroog ca heure boobu ma dem de daawuda yàlla dina ko yonent bi dina ko sant bu ñu añee ba nopp jëfandikoo fa kaatu mi ma yataxayaruuna wala mi tari mi ma yastahuuna wuurun hiin ka amsaliluun almaknuun dina ko ne jàngal rahman bu jàngee rahmaanu alamal quraan neexaayi baat ba dina tax ñun ñëpp ñu xam fa vingt quatre heures yàlla dabaatal nu ci yërmandeem ñu jógaat dee seen suur ba rasulullahi bu ñu añee ba nattu ci boppam mu jàng yaasin à peu près un mois dinañ ko am duñu xi xii ngir neexaayu dégg-dégg troisième suur bi ñuy rompe nag bu ñu añee ba noppi jàlla jëlaalu yàlla ci boppam jàng lixlaas ñëpp a sooy ne ndox ma woon ci seen diggal bàyyi mu toog ba mu nekk mu dabaatal nu ba nu wér kenn ku ne dem sa kër ku ne nag yaa ngi xamee sa kër ci àjjana ni nga xamee sa kër ci àddina waaw kenn du la dikti moo tax àqi nga ne leen ñetti fan la sise sise ba gane ji woon kër gu neex lool mu tëñi bi tëñi bi rek tëñi bi rek ba gën a tàkkusaan soxna si ànd ak sëriñ bi ñu jëw ko moo ni jaay sunu gan gi doy na waar de mu ne ko doon doon naa la ko bëgg a wax mu ne ko man day waxuma dara waaye na la wóor ne de ba mu fi ñëwee ba tey xale yi njogonootuluñu njogonool daal xale yi waat nañ ko rek mu ne ko kon nag nañ fexe mu ñibbi mu ne ko nañuy def gan gu tàggoowul mu ne ko bu subaa nañ xeex xanaa ku gane nit ba jabar jag jëkkër ji xeex di nga ñibbi ñu xëy ñu xëy mu gëdd ndaw si ndaw si siisu gan ngaa ngi toog de mu gëdd ko ndaw si siisu rek ñu ne kirib sëriñ toogal waa yu jóg di àtte kiirti kiirti kiirti waa yu jóg na ko waaye rus ma ci waay mu ne ko lu ko su daal a yëgal